di ngeen xam kan laay waxal sama gaay ne leen rek ba noppi mu doog a nuyoo ñan dem xool yaa dugg ci sama garde bi doo andi géej delluwaat géej géej na dëkk yaa woolu papa moo téléspectateurs yi ñoo duggoon sa gàddu ñoom it dootuñu ko defati. <laughs> déedéet kenn ko ci doon la ilaha illallah lay ma bis waxoon nga ma ko. waxoon na ma ko de. dama da ngay bandi bandi loo ko dof dof benn at lay ñëw ci sa émission dootul jaar <laughs> te ku mel ni moom dootu fi am man nag wax dëgg yàlla comme ni ngeen ko doon tappalee raaya. tappal naa ko raaya bi. ndeysaan Mor maa gën a kontaan daal la gis ci réseau yi. daal la gis ci statut yi ma am plaisir honneur tey aussi dalal la parce que tamit dalal nan la ci plateau boo xam ne maa ngi koy wax sama yaay ji ni ko euh, moom la ñu dara jaalee meilleure émission de l' année 2021 kon buñ fi dalalee jaaru kilifa yu mel nii plaisir mm-hmm. la am moo tax tey mm-hmm. temps bu jeexee sax waa kër gi ci boppam ñoom décidé nañu jëlaat ab ay minute ay simili jox la ko ndax yaa ko mérité mu bàyyi la nga nuyoon teg téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi lay nuyu ñëpp ñu lay siyaare di yàlla di ci yonent bi sant Cheikhul Khadim suñu wasila ak sëriñ Moustapha Fati kenn sama sëriñ sant sama jur yu baax yi ma bàyyi ci kër ga ak sama soxna ak sama njaboot di sawar nag ci jàkkaarloog yow ndax li tax may sawar di jàkkaarloog yow ginnaaw bi Sénégal gépp wéyee mooy sa jikko ak yar bi ak teggin bi tabarkàlla laaw la cat li nga wax loolu moo ci am émission bii ma ñëw lañu la ca waxoon bu temps bi gënee sori nga gën ci gis lu gën a sepp lu lu dépassé loolu. nga ni ma. waaw gis nañ Tamba Mbacké ay waay baa duñ dagg journal bi tey moo xam ne jéem a woo Père El ak Yaay Marème ni leen journal bu mu am tey. déedéet na journal am. ah na journal am. waaw lu tax guerre bu ñu wéeragul arme bi. Ah. mën nañ koy continuer saa su ne. dëgg la itam mais yëkkati daa jafe de. jour waaw waaye waaw waaye ku leen jug waaye prince ay damay bëgg di wuy ji ku mel ni yow ndax xale bu loxoom c'était mu mën a bokk ci mag dégg naa dëgg te yaay sama do te nag tabaarkàlla le douze la ñu mal waaw jëm ci waaw ah nga ni il faut papa moor ñëw bokku ci ma ñëw bokk ci da yor ñaari kilifa yee te ginnaaw barki alxuraanul karim plus de deux ans jëmm jee toog moom indi 2S. sama yaay bii moom ma njëkk woo téléphone ni ma dama la soxla biir 2S TV. ndeysaan waaw kon mu doon kilifa goo xam ni ba ma tàmbalee émission ba tey mi ngi fi a wax dëgg yàlla. mu ma loolu loolu mu demee waaw ni mu demee loolu mooy. Ah. ku dugg mag mooy yëngal daxin. ah dëgg la dëgg mag. Ah. mooy yëngal daxin. waaw ah, dégg ki tax mu jiitu fi moom. waaw kooku jar naa jóg. waaw ndeysaan. am ñoo xamante ne da nga leen di yóbbante am ñoo xamante ne da ngay ànd ak ñoom dafa am ñoo xam ne da naan leen dem leen bërëb sàngam ñu dem. dëgg ndax amaana du ñoo bëgg a dem foofa. Hmm. am ñoo xamante ne da nga leen ñëw leen ñu ànd bërëb sàngam looloo ko fi indi moom moom da la fee indi woon. waaye bi ma fi indi ñooy ànd. dégg naa dëgg. waaw ku dugg mag mooy yëngal dëxin. waaw loolu am na. waaw nag damay gis à chaque fois li ñëpp di wax mooy li ngay way la ñëpp di wayaat. loolu sant yàlla la déjà. Mhm. waaye nala lay def le fait que tey ñu jël say œuvre waaw loolu de sant yàlla la rek. waaw xanaa xamoo ni ku doylewul du yàkkale. waaw ku doylewul du yàkkale ku xamul dara mënta wax lu kenn di jël ba di ko nettaliwaat wala déggoo ma. maa ngi dégg bu baax. sama maam def ni fen amul ma ne ko lu am mu ne ma nettali ak wóoloonte hmm. da ngay nettali sa nit li nga gëm moom mu nettali ko ka mu gëm ndax ku ne am na ku mu xaritoon. dégg naa dëgg. waaw <laughs> boo nee damaa mën te li ngay wax kenn mënu cee jaaraat nga ne damaa mën te waxu loo fi ba nit ñi di ko waxtaane ngay jàkkaarloog ñu koy waxtaane xam ne lii man maa ko moom mënoo. loo fi woyoon ba mu toj dëkk bi toj senegal toj àddina. fàttali ma ci ndax yooyu bari na ci. <laughs> waaw da cee bari. Vénia. ked ked seetaan nga teele déglu nga raam xanaa xamoo réew lu awa ko tey ba ca kër ga du mooy ndayam foo fekk doom ju baax tey honorable député Farba Ngom